di seetaan Ndindy Média asalaamaaleykum taala wa barakaatuhu ñu ñëw fii ci tuuba Bogo fekk fi sunu maam sunu baay sunu kilifa sunu magum donga di Baye Mor Samb Baye Mor Samb ñoo ngi lay nuyu di la ziare. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu leen nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen ah, man nag. nangin yau chida ra yu milu ma manam sengkan sengkan sengkan nuf ba susan kat yu yu ga ali yu yu ndindis san kat sengkan nuf lu yu ndindis sengkan tu nuf dik di lewa lan danoo nekk allié sëñ fa am fa ñeenti at ba juróom sëñ fa lu fekk na fa danu dama leen a soxla fa neen muy ndi muy ndiddi gii ma bëgg ñu dem fa àggale fa sunu liggéey dama bëgg nag kenn ku ne aw say sayu mat kenn fonku mat mi it daa mat a jëm ci magal ga lu nu war a fonk lay doon kon bu ngeen ko taxanee ba noppi ngeen wax ma ko ma ñëw ànd ak yéen ñu yóbbu ko ba yàlla dogalee ñu xëy kenn ku nekk dem seet sa matum jalambaan bu baax a baax a baax taxan ko ah defar ko ba tubarkal boo gisee da nga naan lii sax mat ay yan nga kay teg ndax ni ko sëñ Fallu wax ba na tax mat mat mat moomee ba sëñ bi ñëwee lan sëñ bu sa ñëw naa de fa yar teel ñu daal na murit murit ñun aliyé nag moom ak yamare daara ji ma fu ma sànnee murit murit rek ñëpp ñëw na ñëpp ñëw bu sa daal na cëpp wàcc sëñ bu sa wàccul oto bi moom sëñ bu sa rek moo wàcc na murit murit murit ñu dëwëru oto bi sëñ bi ne waaw mi ñewna na ñu ne ñewna matt mi ñëw na donc it ñëw na mu ne waaw mu ne damaa bëgg dama bëgg nak ñu ñu ñu ñu ñu soppi ab liggéeyeen ndax ali eh, ndax ali gi kat maa ko sañcoon waaye bëgg nak ñu jóge fa dindi dem dindi, soppi fa ab liggéeyeen matt mi ma leen taxal lo nak dama bëgg ñu tàmbalee ko matu màggal matu màggal ñu bëgg tàmbalee matu màggal ñu daal di yenu si matt bi sëñ bi sëñ bi daal di jiitu ñu topp ci di jàngi xasayit xam nga xam nga oto ak ak ak nit mënuñoo mënuñoo maas ci yoon waaye daanaka rawante gi bëriwul ndax sëñ bi ndànk la doon dox ndànk la doon ñuy ñukk di ci topp yëkkati suñu mayu yëkkati suñu mayu ban ñë sëñ bi nag ne li eh, matt mii dañ koy bàyyi fii jox ko bàyyi Cerno Fall te ngeen xam ne nag yéen. lée ma leen di doyee ëpp leen yéesu leen gii mën jàpp leen te leen xamal yoon waa ngi nii nag yoon waa ngi nii dégg du leen jam pakk du leen fël yaana nooy na kon nag acca ngeen di delluwaat nag ndi allié ah, jëli bagage yi fa nekk sëñ moo doo sëñ moo doo xamaan gor fii ñu nekk ba nga xam ne sii eh, gor bu noppi nag mu mu sa mu sandoo joojooyee ci lan ka bay bay fi muy mooy gor bu njëkk ba rek gor bu njëkk boobee muy 62 63 jumaa ji àgg ba jumaa ji ba jumaa ji àggee sëñ bi sax taalifoon na ci aw taalif legi nak dama bëgg nak legi da dañuy delu wo da bëgg da bëgg nak ñu delluwaat nag léegi ah Touba li liggéey li fa yalla fofé nak bu jumaa ji jotee ñu ànd julli jumaa dellusiwaat Ndindi dellusiwaat Ndindi nga hay si nga hay si mbay mi da ko bëggono ba ba juma ji agge rek mo amatul woon leneen soxlaati Senghor nag moo na ko boo bàyyee mbay mi ñepp baye mbay boko baye ñepp baye bàyyi mbay kon nak mbay mi dama lay dimbale ene le fi ay machine def fi trawo ñi ñi ñi di fi liggéey sëñ bi and ak Senghor lolé moy moy 64 moy dik 64 gi mu jóge 64 gi 64 lan sanc. boobu ban ban année ngeen ko sanc Touba boobu. 64. 64 waaw bu mujj bi. Hmm. ko sanc ñaari sanc. waaw dañ koo sanc dégg naa damaa xam ne 62. waaw lan lan hmm. hmm. ba wala sëñ bi bëggoon a mi. bàyyi jumaa ji jumaa ji Senghor nag Senghor nag moo ne ko boo bàyyee mbéy ñëpp bàyyi mbéy ñëpp bàyyi mbéy kon nag dama lay jàppale dafa la fi travaux dag eh, la tool yi bam bam nooy yaa ñu ñu doon fee mën a ñu doon fee mën a béy loolu moo moom lañ def muy 64. 64 waaw 64 joojee nag. moom ba nga xamee si ne nag léegi fa la nekk ba ba ba ba 68. ba sëñ bi nag. Hmm. jamono yooyu nga xamee si yàlla def na muy waaj dem. Hmm. fii la bëggoon a deme hmm. dem googu ba nu bëgg a fii la ko bëgg a waaye fi la nekk nekk fi ba nga xam si ne jege na lool mu doon wax sëñ busu wal ma dongo yi. sëñ busu hmm, mooy sëwër ba. ah mooy sëwër ba ah mooy sëwër ba. sëñ busu dana murit murit ñu génn ñi dikk sëñ bi génn toog ñu toog wër ko. mu toog ba mu yàgg mu ne dong yëpp ñëw nañoo sëñ bi su nag ah ñëpp da ñëw nañ ah dama leen soxla de ñëpp laa soxla de ñëpp laa soxla de mu ne ko ah ñëpp da ñëw nañ ci dong yi mu ne ko dama leen soxla ñëpp laa soxla de kon kon kon da ngaa war a dem Touba. loolu 68 la woon. waaw. ah waaw waaw waaw de de loolu sant yi hmm. muy waaj a dem gi rek la ah, waaye nag soriwu ko. mu dem mu taal oto bi dem Touba dem bi tugg Alaaji Moor Géy ñu daal di koy joxaar daal di koy yéene ne sëñ bi ne képp koo xam ne dongab laxasaay nga na nga fekk Touba Bogo léegi la leen soxla daje ña ñoo féete Touba ñoom ñëpp ñu daal daje ca bitig Moor Géy oto oto bi ñëw taxaw ñu sëlmal takkusaan sëñ bi génn day na ma def maa leen woo waaw man man de maa leen woo woo woo woo gi ma leen woo nag soxla si ma leen soxla moo moo moo mooy mooy da ngeen fee ne di liggéeyal yàlla ma bëgg nag ñu ñu ñu ñu ñu ñu soppi liggéeyeen soppi liggéeyeen ndax ndax Tuubaa bëgg gii kat ah ba ma nga sañc jumaa ji rek taxoon liggéeyub jumaa ji waaw léeg léegi nag jaamu yàlla rek a fi nekk jaamu yàlla ngërëm mom am ngeen sama ngërëm mom am ngeen sama ngërëm li ci li ci ah, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu bu bu bu bu bu bu, ñu bu, dem ci bu, bu, bu, bu, rek bu, ci bu, bu, bu, bu, bu, dem dem Touba julli di bu, julli ay bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, kenn ku bu, bu, bu, ci ay bu, ñu yeewee kenn ku nekk dafa delluwaat ci ay waajuram te waxe waxoo ko noonu maanaam am na ngërëm la wax na ko waaye ci kaw gi it dafa dafa teewul ñu ngi ci daara ji bay rek fi des waaw bay rek fi des ñu ñu ñu ñuy bay nag nawet bii nag nga nga nga nga xam ne si ne ci mooy mooy lii ma leen wooyee. gerte jiw wi may ji fekke jiw may wi may ji yalla duma yi rek tax ma di def yalla na sotti coleet bu fekke nak ne ah juma ji tawul yalla mel la jiwu xorom yalla mel la jiwu xorom kon nak fekke ne lolal na sotti coreet ñu daal def noonu ànd nefa nefa nefa nefa nefa nefa nefa nefa nefa nefa nefa nefa ba yàlla dogul ah yëf yi xaw a diggante jege si ba mu delloo ba mu delloo ba mu delloo woote wut magal gi day gën di jege si magal gi day gën di jege si di jege si ba Tuubaa fees dell ci gisuñu sëñ Fall sëñ Fall nekk Tuubaa boobu Tuubaa fe Tuubaa fees dell ki ci muy magal gu mag gi nit ñi jaaxla lool ñu ne ah ñun de jaaxle nan ndax magal gu toll fii ñu toll ci sa gisuñu sëñ Fallu de ah xam na noo jaaxle. waaw mo booba nag moom mu ngi ci waajtaay wi booba nag moom mu ngi ci waajtaay waaye nag waaw ñu it ñu it ñu ngi fi ñu it ci daara ji rek waaye taxul nag it nag kenn ku sam xel xalaat dara amu ci waaw ndax dafa doonul koo xam ne dafa tëdd ci jamono yi may la wax fii fii fii di bokk di yenn ci ci kii seulement tàkkusaan léeg-léeg génn ci mbaar mi. Tok, ba ba ba ba ba tay ba ba fa ba ba mu ba di mu ba eh, eh, ko mu ba ba mu ko ba tay ba ba ba ba ba ba ba ba mag yi la ba ba ba mag yi la ba ba ba ci ba ba doon mu ba ba ba ba mu ba ba ba ba ba mu ba ba ba dafa ba ba ci ba ba Fallu to waa fees na del gis ñu sëñ Fall mu ma ko ah man de damay màggali rek de damay màggali dong de magel rek lai def lai di ne de de toogal kon bu ñu jullee timis ñu do dem ñu de di ànd toog ba timis jot ba timis jot ñu julli timis bon julli ba bon julli timis ba noppi. ah ñu door fee départ fii waaw sëñ bi jiitu sëñ tey ba topp ci oto ba sëñ Njaay topp ci ba neen àggee Tuuba ban àggee Tuuba mu daal di ne daal di génneelu ab jox ko ba sëñ Njaay na ko na nag fii ngay màggale yow fii ngay màggale ci ci fi ba sëñ Njaay fa la at moom ak ku ñëw bala sëñ yaa ngay gis sëñ ba boobu duggee ci kër gi ah bari nañu ko gisaatul bari nañu ko gisaatul ba màggalee ba ñëw it dañu eh, eh, eh, jot a màggal lépp it kee la ko jox sëñ Abdou Lahat sëñ Abdou la ko yónni ñu màggal màggal ba màggal gi jàll ah mu jël lépp jox jox ko sëñ Abdou Lahad waaw sant soixante soixante huit waaw soixante huit soixante dem gi rek soixante huit rek waaw mooy soixante huit mooy soixante huit waaw doy na waar waaye bi moom hmm. moom kenn la jenn jëmm joo xam ne si ne moom kenn du ko tëkkale kenn kenn du ko tëkkale kenn ni mu mel rek moom moom moom ne la mel yàlla na yàlla taas ci barkeem daal ci barkeem sëriñ Fallu yàlla na yàlla taas ci barkeem ci barkeem sëriñ Fallu jërëjëf jërëjëf jërëjëf bay Mor ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom defal la tawfiq bu baax yokk sa fan wéral sa cër bu baax a baax am nañu mbégte bu baax a baax ci fekk si giñ la fekk si nga nangul ñu ko te xam nañ ne sëñ Fallou loolu la ci waaye sant rek nga defal ko ko yàlla la yàlla dolli ak wér bu baax a baax a baax a baax a baax ba lépp loo xam ko ci sëñ rek sëñ Fallou di la ko gën di ko dolli saa su nekk barke Sewal Xadim nga fekk njab eh, njëriñal njaboot gi yëpp yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf gën a gis di Ndindy